waaw xam nga di sant yàlla d'abord dañu sant yàlla ñun ñu may teewaat ren ji di ñaan mu may ñu ñu teewe ay déwén di gërëm mag yu baax ñu si jaaroon da nga xam ne ñoom ñoo sosoon lii ba ñëw tey ñu ñu di ko wéyal ci waxtaan wax na génne fàttali na na li yàlla wax jullit ñi yéen ay askan bi gën nag ñu ngi askan bi gën ci kaw suuf war nañ ko wone jëfe ko dañ koy jëfee ci def la nga xam ne beneen askan mu nekk suuf dana am lu ñu nawee ak wegee ñu ko ci suñuy euh, doxalin ci suñuy koom ci suñuy ñu yore suñu réew ak nu ñu jàppale sax yeneen xeet yi wala ni ñu nit am na lu ñu mënee waaye jàpp naa ni tey jii nii am dellu nañu ginnaaw dellu ginnaaw loolu lañu loolu boo xam ne euh, ñàkk nañu xam-xam it ñàkk xam-xam boo xam ne mel ni ñun ñoo gën dellu ginnaaw kon donc nañu motal suñu suñu gëm-gëm ci loolu yàlla wax ba nga xam ne dinañu taxaw taxawaay goo xam ne ëllëg ku ñu gis ci kaw suuf nawee ñu ko bokk na ci nag fexe ba nga xam ne bu ñuy def comme ñu ñuy dëgmal muy élection yi te ñu ci daan jaar Afrique yëpp naw ñu ñu jox leen ci ay leçon ñu def da nga xam ne du yoon it afrique yëpp dinañu naw mu jaar fi ñu wa fi ñu bëri woon di jaar donte ni léeg leen mu doon am ay tolof tolof waaye saa yu amoon tolof tolof dinañ daan jël ay matuwaay yoo xam ne tolof tolof yooyu dina wàññeeku wala dinañ ko éviter dégg nañu nag njiitu réew mi am temps yi lu mu wax ne après élection am na yu mu nam ma def yàlla rek moo xam kan mooy fekkee élection yàlla rek moo xam sax kan mooy dund ba ëllëg waaye bu fekkee ni am nga xalaat bu baax te yéene ko réew mi bul xaal ëllëg wala gannaaw ëllëg jëfe ko léegi maanaam day jël ay mesures pour détente jàpp nañ bu fekkee ni lu gars yi di wax ni ko pour du pour fexe ba nga xam ne ñi fi bokkoon ñi mu bëggoon ñu bañ a bokk ci élection yi moom rek moo taxoon na jël ay matuwaay yooyu muy jël léegi bu mu xaar ba après élection comme fii Tiwaawoon la ñu nekk bu ñu ci àdduna fu sori waaye bu ñëwoon ci yeneen bërëb dinañ gën a fësal li ñu wax parce que li ñu wax jàpp nañu euh, lu tubaab di wax aveu la maanaam reconnaître que ni am na ay yu taxoon li fi jaar yëpp jaar fii ba nga xam ne pour écarter ñenn ñi ak pour doxale lenn ñi te loolu bokk na ci loo xam ne du du tax a jàmm gën a yaatu ci réew mi waaye ñu ngi ñaan xel yëpp dellu si moom it matuwaay yu mu bëgg a jël yi mu jël ko doy na la.